ñun natu Salaam kër Sambalaw bi dañoo am problème problème bi mooy sunu dëkk di kër Sambalaw bi maanaam euh, dañoo jël setodo gas ko jël ndox mi génnee ko sunu dëkk yóbbu ko mbuur pour alimenter mbuur bàyyi dëkk bi dëkk bi amul ndox dëkk bi gis loolu nag mu naqari leen metti leen amul góor amul jigéen ñëpp génn di manifesté wu loolu mooy sunu problème loolu mooy sunu jafe-jafe. leneen doonul suñu jafe-jafe ci loolu nag ci suba gi ñu xëy ci guddi gi ñu yónnee ñu ay convocation suñuy leaders yi nekk ci dëkk bi yàquñu tojuñu saagawuñu ñu yónnee ñu ay convocation loolu moo ñu indi gendarmerie motif motif bi moom waxaguñ ñu ko ñun ñu ngi door a egsi dañ ñoo convoqué rek nañ ñëw wuy ji ñëw na ji nag pour wuy ji mais ñun yàquñu ñu li ñu waroon la war a def daal def nañ ko mooy génn di wane sunu naqar ci dëkk bi parce que dañoo bëgg a jële ñëw nañu gas nañ suñu biir dëkk yéguñu jël nañ ndox mi bëgg ko yóbbu ci benen dëkk dëkk bi nee loolu man ta nek té du am loolu moy suñu jafe-jafe loolu moy suñu problème waaw ñun ñofa fa parce que ñun amuñu ndox mosuñu am ndox te man mi di wax ak yow dama bokkon ci ñi nga xamantene ma maa nekkal màgget seen kër Samba Law bi mais tay dama ruus dama am gatcha ci bir mbolo mi ndax ñun bokkon ci ñi nga xamantene ne ñoo ko doon xeex màgget seen bu daan ñëw kër Samba ñun lay gis ci kanamam ñun ñoo daan gëné population bi. ñun waa bureau électoral tey ñun dañoo rus jaruñu dara ci dëkk bi ndax man de ku ma waxoon ne ma Maguette Sène deuxième mandat bi du fekk kër sa du fekk kër Samba mat na salaam ndox ma di bali fépp ma weddi ko kon man maa gën a rus tey parce que boo bëggee gis teen ñëwal kër Samba boo nammee gis baak ñëwal kër sàmba amuñu ndox ñun ci teen la ñuy root ku fa amul moyen amoo ndox léegi tey nga xëy toog un bon nga gis nga dégg ñu ne on a délibéré l'espace pour SONES waaye léegi nag di nga toog di seetaan est-ce que ndox dina jéggi pax non non ndox du jéggi pax ndox du jéggi pax ndox pax loolu nag lañ ne ñun duñ ko nangu parce que dañoo njëkk a programme def fa ay tuyau tuyau yu ndaw gas fa ñaari mbedd ñun bokkoon nañ si ñu ko doon lii benn jour lañ ko dañ ko inauguré le lendemain laa li travaux yi du commencé ñun dañuy am ndox ba pare mhm. loolu la dëkk bi ñëpp taxawee population bi Madinatoul Salam ñun loolu la ñuy jooy màgget seen nañu defal ndox mhm. moom mooy responsabilité ñëw si maire may sa adjoint au maire moom mi nga xamante ne ñun mënuñoo gis màgget seen suñu bëggee gis seen moom la ñuy gis suñu nammee gis màgget seen màgget seen moom la ñuy booleel moom maire may kon ñun lépp lu ñuy lii maire may sax tey moom moo ñu rusloo man boog man boog en personnel ñun maire may sax tey ji def ñu tax ñun li ñuy li ñuy jooy ñun ñoo ko moom mhm. suñu suuf la suñu forage la eh. kon tey duñ ko nangu dañuy bañ ba luñ ci góobe gar ko ñun daal defuñu lu dul am lu ñu naqari te yaakaar naa ni monsieur le maire dafa am soxna am ay sœur am ay dëkkandoo yu jigéen te olof Njaay dane bay ci say wóom mhm. te yaakaar naa ni bu fekkee da ngaa dem ci dëkku jàmb di bay bàyyi sa tool yaakaar naa ni luñ la fa def yaa ñun li ñuy réclamer suñu ndox lañ réclamer ñaanuñu leen ko nag ñaanuñu leen ko ndax la nga moom doo ko ñaan doo ko abbi doo ko jéggaani monsieur le maire yaakaar naa ne askan wi ñoo ko fal. Mhm. te ci yaakaar lañ ko fale bu mu mas a tas seen yaakaar déjà rek yaakaar tas na waaye na xam ne jigéen ñi sonn nañ ci kër yi mhm. chaque jour nga bëgg a jënd lu tolloog 2000 francs ndox kooku weer bi 60000 la lay dikke bu doon ndox booy fay facture doo fay 60000 kon nag ñun duñu seetaan ñiy jox ñeneen ndox. romb waa dëkk Madinatu Salaam foofu noonu kër Sàmbalaw be du ñu am ndox loolu moom kenn du ko nangu loolu du fi amee duñ ko mën a nangu te duñ ko seetaan te lu mu laaj dañ ko ciy def. comme ça ñun ñu toog euh, dëkk yëpp di am ndox ñun duñu am ndox en même temps ñu bëgg jël ndox génne ko suñu dëkk di ko jaay feneen loolu duñ ko nangu suñu bakkan lañ ci teg fii amul partisan amul leneen suñu bakal lañ ci teg dañoo tëj suñu place bàyyi suñu euh, activité ñëw taaw fi ngir suñu dëkk kon loolu bañuñ ci dara bañuñ ci man man bu ñuy jàpp man mii nañ ma jëkk a eh, nañ ma jëkk a jàpp man mii en personne nañ ma jëkk a jàpp dugal ma ci kaso parce que li ñuy kaas suñu droit la ñu ñoo ko moom suñu droit absolu la ñun ñoo ko moom mënuñoo dëkk ci dëkk ah, ba pare mënuñoo jëriñoo dëkk ba te ñuy ay citoyen di fay taxe bu élection jotee ñu ñëw bëgg ñoo rey daaw fii la ñu ñëw ndaxee ñu ay ay petit tuyau yu ndaw yoo xamante ni ñu ñun xam nañ ne lii du ay tuyau ndox ñu ñëw ndax ñoog loolu ba pare loolu jàll ñu continuer bëgg ñoo naxaat pour jaay ñu kii jeex na ñoom seen benn kii bi moo ko fi dese mandat bii moo ko fi dese kon nag dañuy ñëw considéré ñu defal ñu comme li ñu defal ñëpp mënuñu ko ñun ñu ngi fii toog di leen xaar foofu ku fa bëgg a ñëw pour nangu ko suñu loxo ñun nga fay fekk te suñu bakkal lañ lay jaay